waaw gars yi tey nag euh, dañu bëggoon wax Abdoulaye Makhtar Diop grand serigne de Dakar jiite communauté lébu bi yëpp bi nekk Sénégal rawatina Dakar man mi ma bok ci ndax lébu laa Abdoulaye Makhtar Diop yag na ci gouvernement il a occupé pas mal de postes dans le gouvernement de Abdou Diouf nek le dernier ministre du sport bu Abdoulaye Wade te lata loolu timit foog naa ne jaar na ci Senghor kon moom ci magu Sénégal yi la bokk instant bi te boo bokkee ci magu dëkk bi da nga war a nekk ci luy defar dëkk bi ak loo xam ne dafay indi stabilité ci dëkk bi waaye luy yàq dëkk bi ak lu mën a taal dëkk bi loolu warul jóge ko ci yow Abdoulaye maxtar Diop ndax kilifa nga Macky Sall jaru ko keneen jaru ko Sénégal moo leen war a jaral lu nekk moo leen war a gënal lu nekk bi ngay nekk ci Senghor Abdou Diouf Je Macky Sall primaire wala collège ba yalla def mu président de la république lu mu metti metti da nga wara am courage wax ko deug bu suis ci deug nga ne ko Macky Sall suis ci deug waye tok di ñu wax naan ñu dañu dem référendum pour suis affaire troisième mandat bi je suis désolé waye lolu du suis le waru Je ko ci parce que constitution bi dafa le mandat présidentiel est de 5 ans renouvelable une fois et nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs yaa ma a dégg Abdoulaye Diop gouvernement vous été xam constitution bi en 2000 euh, constitution def limitation des mandats 2001 mu def référendum le mandat à deux Macky Sall ñëw mandat bi continuer di am coow ndax Abdoulaye Wade dafa da fay def 3e mandat forcé bam indi won coow Macky Sall bokk na ci ñi nga xam ne won ci 3e mandat bi motax bi mu falo lu mu njëkk def moy dañ né daf na dañuy lijeenti affaire yu mandat bi parce que da fay indi problème toujours mu yóbbu ñu référendum en 2016 mars ñu voté ñëpp wax wi sénégalais ñu ëpp ci ñom ñu né constitution bi légui mayetul kenn ngay teglante lu ëpp ñaari mandat loolu leer na naññi ku nekk ñaari mandat wu ngay am Macky Sall def na sept donte cinq la waxoon lay def defu ko respecté wul kàddoom mais loolu passé na suñu yoon nekkatul ci loolu boppam la ko def defuñu ko li nga war a def nag mooy nga jàkkaarloo ak Macky Sall xam nga li nekk ci texte yi xam nga luy dëgg ji nga ne ko président Macky Sall mën na la naam nga ne ko amoo droit ci troisième mandat waaye waroo taxaw di ñuy wax naan ay référendum ñun dinañ dem référendum te constitution bi wax lu leer nañ ci affaire yu mandat bi kon léegi constitution bu ñu voté woon deux mille euh, seize ban njëriñ la amati mooy référendum bi amoon deux mille ak xaalis bu ñu ci def ah. ma ne nañ waxante dëgg yàlla dëgg la bëgg xulil xaq walaw kaanu ren am na yoo xamante ni nguur jaru ko bëgg di nekk ci nguur di ànd ak ku nekk ci nguur ba xëy génn àdduna mais nit booy ànd ak moom sax nga wax ko dëgg bu la neexee nga faral Macky Sall bu la neexee nga ànd ak Macky Sall mais soo gisee dëgg taxawal nga wax ko loolu na yàlla bëgg Abdoulaye Makhtar Diop am na yoo xamante ni jaru ko constitution bi leer nañ ñi la def lan la ñuy ci ay naan dañuy defaat beneen beneen référendum pour lijjanti ay mandat te constitution bi wax ne kenn mënta def lu ëpp ñaari mandat mais loolu leer na kon li nga bëgg a def nii ak li ngay wax nii yëpp dafa mel ni Macky Sall daf yoon yónni pour nga daf sondu comme ni mu koy defee à chaque fois xool ndax affaire bi jàll wala du jàll tey ji ñu demee référendum yaa gën xam ne Macky Sall dafay gagné Macky Sall lu ñu wan ci élection yi passé élection présidentielle jël fichier électoral bi téye ko ne du ko joxe changer code électoral bi éliminer ay candidats def lu ko neex ah cëkkat cëkkateel suñu ay carte d'identité am ñoo xamanteni dañuy wara voter mënu ñoo voter am ñoo xam ne da ngay war voter ci benn dëkk ñu yóbbu ci beneen dëkk bu sori pour nga décourager baña dem voter ji sacc élection yi ah tripartite yooyu yëpp def lu ko neex légui mu bëgg troisième mandat.

gis nga président africain yi ñuy gagné yëpp ñu dem parce que daf leen neex moo tax Abdou Diouf bi ñu ko gagné mu dem daf ko neex ab Abdoulaye Wade daf ko neex ñeneen ak ñeneen da lay neex dangay am honnêteté ak bëgg jàmm rek mooy tax nga bàyyi nguur gi mais ku toog Afrique ba pare honnêto mën ngaa toog ci nguur gi ba dee président Abdou Aziz wax na ko démb ci interview bi France 24 nee na ay moroom président africain yam dañ ko doon wax na ko mu forcé def troisième mandat mu ne moom. dafa bëgg jàmm Mauritanie bëgg wane le bon exemple en Mauritanie donte sax coup taal a def mu def ñaari mandat dem yoonam te kam fa bàyyi kooku war na ko instant bi trahir ko sa réew dafa la war a jaral ay sacrifice te Abdoulaye Makhtar Diop pour man yow posture bi nga am ci Sénégal da nga war a nekk koo xamante ni da ngay consolider la paix au Sénégal lépp loo xam dafa nar a indi fitna waroo cee dugal kenn te waroo kaa wax bi ñu la interviewé laaj la ci troisième mandat bi li nga war a wax te muy dëgg te ñëpp doon ko séntu ci yow mooy ne Macky na ne pas faire un troisième mandat c'est tout constitution bi moo ko bind te leer na nañi te sénégalais yi ñoo ko voté